noo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xeewal ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba dinay tukki mbokk fii ak fan yu néew rek nit ñi danañu jublu poroxaan di fa dem ngir fàttaliku soxna su tedd muy maam jaara fàttaliku ñu baax ñi nag moo xam ñi góor ak ñi cay jigéen fàttaliku leen lu ñu santaane la alxuraanu karim xamal nañu ko ci laay yu baree bare maam jaare it nit ñi dañ ko fonk bëgg ko te ñoo yey it ñoo yey fonk ko ñoo yey bëgg ko waaye nag fàttali ko ku baax liñ ci war a jublu ginnaaw buñ ko ñaanalee ba noppi kon nañ ci jiital mooy ñaanal ko waaye ñaanal ko nag bu jàllee dañu war a jubluwaat ci fàttaliku ga mooy man koo roy mën a jànge ci moom yàlla kat nettali na yonent yi seeni jaar-jaar ci biir alquran waaye dafa wax ne nettali yooyee ñi am xel dañ cee jëli ay bind am na fa mu tuddee yonente yu bari itam bi leen tuddee ba noppi dafa wax yonente bi nag ne ko ñii ma tudd nag mooy ñi yàlla jubal kon na nga roy ci seen jub mais kon yonente bi sax dane ko na nga roy ci ñu baax ñi la jiitu woon kon ku baax ku jiit ku nekk itam buñ koy fàttaliku jublu ga bu ñaanal ko jàllee mooy di ko roy maam jaara nag ku neex a roy la mat na royukaay ndax royukaay la ci digganteem ak boroomam royukaay la ci digganteem ak boroom këram bi ko yàlla boole loon royukaay la itam ci digganteem ak um njabootam loolu lépp sëriñ Basiru mi ngi koy tënk ci Minanul Baaqil Qadiim bi muy wax ci maam jaara wax ne maam jaara ku baax la woon ku sàmm ku am diine ku bari woon lu muy julli bari lu muy woor bari lu muy sarxe ku bàyyee woon boppam yàlla la ku daan taxaw ci waru garam ci diine yépp la digganteem ak boroomam ak digganteem ak sëriñ jëf ko yàlla boole loon ku daan yar ak njabootam la itam daa leen yar ci jikko yu rafet ak ci diine daana leen nettali nettali ñu baax ñu jiitu woon ngir ñu ñu roye ca ñoom ñoom itam sëriñ bi loolu la wax ci maam jaara mu tënk li nu waxoon lépp te maam jaara yetti wàll yooyu nu wax ku ko ci roy dana bokk ci ñi gën luy tey mu bokk ci ñi gën koo xam ne dafa sellal digganteem ak boroomam rafetal digganteem ak borom këram rafetal tam lim doon yare ak njabootam kooka ko roy ci moom dana bokk ci ñu gën ñett yooyu nag muy diggante nit ki ak boroomam digganteem ak borom këram digganteem ak njabootam dañuy am yu am solo ndax bu dee ak sunu boroom moom jaamu ko moo fi dox jaamu ko mooy topp ko rek di def li mu bëgg di moytu li mu li mu bëggut te loolu moom moo tax yàlla wàcce na ci suuf moo wax ci alquran ne nit ak jinne lenn taxul ma bind leen lu dul ñu jaamu ma rek ngir ñu jaamu ma rek moo tax ma bind leen jigéen itam walla góor góor bu rafetalee digganteem ak borom soxnaam bu rafetalee digganteem ak soxnaam day bokk ci ñi gën ndax yonente bi moo wax loolu moo wax ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci ay soxnaam te man maa gën ci samay soxna moo tax maa gën ci yéen bu dee jigéen itam bu dee sàkku ngërëmul borom këram ci lu jaadu loola itam moo koy may ak texe ak am lam bëgg yonente bi sallallahu alayhi moo wax ne jigéen ju faatu te yóbbaale ngërëmul borom këram rek day dugg àjjana bu dee yorum njaboot nag moom day waru gar wow yàlla moo ko teg wayjur yi ku ja taxaw na mu waree yàlla fay ko ci waaye ku ko sàggane itam day bokk ci ñi mooy yàlla ñi def bàkkaar yàlla wax ci alquran na yéen ñi gëm na ngeen fegal seen bopp sawara na ngeen fegal seenu njaboot itam sawara donc ñaan yàlla mu defal niiw àddina ko àllaaxira musal nu ci sawara sàmmal na sunu gëm benn bunt yiw yëpp soob nu ci ak njub mottali sunu yéene yëpp mel nu fan gudd ak wér ak mujj rafet